jàppandul yi tax su ci Sans Limites TV dal leen ak jàmm ci seen chronique de la semaine le buzz du web du nouveau sur l'affaire Cheikh Amar ki di jege ñaari patron TSE Cheikh Mbacké Gadiaga joxe na xalaatam ci bile accident bu Cheikh Amar def niki altine ci yoonu tuubaab yi ginnaaw ba mu amalee ndaje mu yaatu ak taskati xibaar yi kii di Cheikh Mbacke Gadiaga dafa joxoñ baaraamu tuuma kii di Joseph Hazard nekk directeur général de l'Africaine de l'automobile ci bile eh, ndaje yëgal nañu ne dafay entamer ay procédure judiciaire contre Joseph Hazard pour défaut de réparation bile auto bi yaboon Cheikh Amar ci noonu dalal na itam xelu sénégalais yi di leen wax ne kii di njiitu TSE tracto service équipement mi ngi am tawfeex bu baax affaire à suivre ñu desandi ba tey ak affaire Cheikh Amar Serigne Mbacké Diop nag nekk porte parole si moom di ñaaw lu réaction sénégalais yi ci fausse information yi ñu doon joxe di tàggee kii di Cheikh Amar waaye itam mu ngi leeral ni que ni chauffeur Cheikh Amar boobu mu ngi ci jàmm bu baax a baax. rebondissement si kaw Taïb Socé mi ñu jiñ luubal or ci lu toll ci valeur fanweeri million ak lu tek kii di Ahmed Khalifa Niass nag wax na ni collecte de fonds bi ñu amal teguwul si yoon ndax méngoowul benn yoon ak charia teewul nag ñi amal bile téléthon ñu ngi woyal seen liggéey ngir jàppale ki nga xamante ne ni moom mooy oustaz Taïb Socé article à retrouver sur Galsen 221 ba tey ñu des ci kaa Tayib Socé kii di njiitu ONG Jamra Mame Makhtar Gueye nag rafetlu wala yile kàddu yi nga xamante ne moom la Ahmed Khalifa Niass teg waaye itam di ko laaj mu indi ay leeral ci kàddoom yile Parlons people avec notamment le divorce de Katy Chimère Diaw. Selon le site Limametti, l'ex-miss du Sénégal n'est plus Madame Ndoye depuis plus de six mois ci noonu ñu ngi ñuy xamal ni que li sabab boobu li tàggoo ak boroom këram xamaguñu ko wante ñu jàpp ni pour Katy Chimère dafa jot ci moom pour mu suqali li nga xamante ne moom mooy ay business am wante itam toppatoo njabootam. article bi na ngeen mën ko retrouver sur Dakaractu. ñu des ba tey si wàllu di Sénégal di ñu xamal ni que Ouzin nekk dañ koy jéñ na mbirum borom ñaari tur kenn nag ci ay dëkkandoowam wax na ne kii di Ouzin dafay jëfandikoo ay dësu jigéen Ouzin nag bañ ko tàllalee micro dàq na yile tuuma waaye itam di leeral que nii lii yitteem rek moom mooy fexe ba ay mbëbëtam antu. ñu dugg nag ci wàllu éducation interdiction du port du voile dans l'institut Saint-Jean d'Arc le collectif des parents d'élèves nag wane nañ seen naqar ci bile règlement bu institut Jeanne d'Arc tëral lii la règlement boobu nag mooy que ni école bii dafa nekk école bu nga xamante ni nii ña fay jàngoo bokk ci ay waasu ak diine bokkul selon l'institut bile bëgguñu di def xaj ak seen ci seeni élèves mu mel ni nag lay boobu am nañu ci joxe seeni xalaat di wax ni Sénégal réewum la wante itam di sàkku Sénégal mu def taxawaay ci bile situation balaa muy ëppi loxo source sans limite sn.com. en sport ñu ngi yégal ni le capitaine de l'équipe nationale des Lions Cheikhou Kouyaté dafa may ab oto bu bakkane ki nga xamante ne ni moom mooy soxnaam Fatima Zahra Mbow ñu jàpp ne couple bile jot nañoo ngénte seen doom ci ay bés yu weesu. ñu des itam ci wàllu sport les lions du basket sont éliminés avec trois défaites ba ñu leen tàllalee micro yi wax nañu ne bile élimination préparation bu amul solo loolu moo ko sabab kii di ailier équipe nationale bi nag di Jibril Thiam wax na ni fulla ak fayda moo sooxee équipe bi pour moom nag mënuñoo am jongante bu ëpp doole lii di coupe du monde te loolu entraînement ak fulla ak fayda ak condition yu baax la aajowa ngir ñu gañe ko article bi nag ngeen mën ko retrouver sur leeral point net mbokk yi ñu doon seetaan loolu nekkoon seen chronique les buzz du web laata ñuy tàggatoo ak yéen ñu leen di ñaan ngeen abonné wu en masse ci suñu chaîne sans limite TV waaye itam di activer la cloche de notification pour recevoir suñu vidéo mesdames et messieurs au plaisir.